Wally Seck moom ci nii wala ci naa sénégalais yi dinañ ko may jàmm waaw ma ne guerre bi dafa commencé commencé na guerre bi instant bi nii commencé na man man ak fans Wally Seck yëpp ak staff Wally ñi bëgg Wally Seck yëpp dootuñu permettre mindeef muy génn di teg ci deru faramarin bii loo xamante si nii defu ko te amoo ci preuve mindeef dafa jeex dafa doy on est kuy concurrence ak Wally Seck wala nga koy ñëwal ci musique bi képp koo xam ne da nga bëgg a contre Wally defee ko musique da ngeen ko bëgg a daaneel na doon affaire musicale bu ngeen ko bëggee daaneel na doon affaire de musicale mais baatu ko tuumaal ay LGBT ay góor jigéen non nan leen ko teg ci musique ku ne xam nga koy sa papa ku ne xam nga koy sa baay ku ne xam nga kan moo la dàqaway ku ne xam nga kii bu yuuxoo nga xam ne woykat dëgg mooy wax nan ko teg ci cadre musique nañ ko teg ci cadre musique rek léegi wax ji leer paa di jël nit di ko tuumaal wala di teg ci daram bi loo xam ne dafa ñaaw ah non non non non ko teg ci cadre musique man nag man Adamo du ma permettre kenn kenn du man kese de ñëpp ñu bëgg waali nga jàpp waali sekk di ko wax lu ne ne waali waali waali waali dafa sonn sonn na waali sonn na nekk di wax suba ngoon ci benn nit ki suba ci benn nit di wax li ngay wax dara leeru ci bon ngeen soxor ngeen iñaan ngeen booy bi kenn du ko tee dem dafa nekk ci yoon day liggéey kenn mënu koo tee dem wax wax bàyyi ba ngeen dalee wax depuis 2016 yéen a ngi wax ci booy bii nii 2016 ba tey yéen a koy tuumaal yii di yàq deram ba tey ñu ngi ci 2000 ñu ngi ci 2021 di waaj a dugg 2022 sensé gu leen sonal booy bi nii rek. non non non non c'est trop dootuñu ko permettre kenn Wally Seck du góor jigéen bokkul famille góor jigéen xamul góor jigéen du ànd góor jigéen doxul ci loolu sax nit ku baax la mooy sunu waykat moom la ñu bëgg peuple bi moom leen bëgg jeunesse bi moom leen bëgg mu neex leen mu naqari leen Wally Seck moo fi nekk Wally Seck yow yaa fi nekk góor góorgóorlul nekk sa yoon liggéey bul tontu nit bul wax ak nit képp ku dara ba wax loo wër wax man dinaa génn dal sa kaw wax ak yow permettre ko kenn trop c'est trop jeex na Adamo la merci beaucoup gars yi wasalaam